Euh, li nga xamee moom laa bëgg sénégalais yi jàpp ko te bañ koo fàtte moo di assemblée nationale ca tàmbali ba la am benn déficit boo xamee ne daf ko judduwaale di ko doxaale ndax tey jii législateur bi dafa ne woon nañu séparer pouvoir yi ndax cëru assemblée nationale mooy contrôler gouvernement saytu loi yi ba pare di def cëram exécutif bi nekk de l'autre côté mais bis bi ñu njëkkee tàmbali ci assemblée nationale bi toroxal fi député muy Khalifa Ababacar Sall ndax bañ li nga xamee ne mooy immunité parlementaire bi nga xamee ne mooy sookul mooy ndëgër laay li nga xam moom la député am pour mën a def liggéeyam na mu ko war a defee te du ragal ma Samba du ragal ma Demba bu député yi taxawee ci seen premier jour jël loolu xotti laa ni kat cin bu naree neex bu baxee xeeñ te na mu tàmbalee dara baaxu si boo ko seetee boobee ba léegi lu ay di jàmbat. te bu doon naqaru nit ñi bu ko assemblée nationale yi yëkkatee nit ñëpp seen xel def see tey ndax dañu naan du mujj fenn noonee la commission d'enquête yi demee noonee la ba si barki Dembo Ndiaye la ñu engagé woon ni dañuy ñëw assemblée nationale pour waxtaan ak assemblée bi ay fan dañ ko fa teg defuñu ci waxuñu ci ba bis suba ñu xëy suba ni ay presse bi ñëw leen ñuy waxtaan tous les quinze jours mu wóor ni la fa nga xamee ne fa nga war a débattre fa nga xamee ne fa la loi constitution bi wax ni fa la débat démocratique bi war a nekk boo tëjee bunt yi ak la complicité de la majorité bi nekk ci assemblée nationale ngeen mujj wëlbati ko tànc assemblée nationale ba mu doon benn chambre d'applaudissement ba mu doon barab boo xamee ne dafa nangu ni dootul jouer day simmeeku nekk ndunguru wala tarbiya ki nga xamee ne mooy exécutif bi foofu la ñu yàqee mbir mi kon budget bu ñëw day niroog budget ba passé woon taxawaay bu ñëw day niroog taxawaay ba passé woon ndax li fi nekk fii assemble amatu fi chambre d'enregistrement fi moo fi am exécutif bu jéggi dayoo ci doole moo fi nekk ba wal ko mooñ ko téye ko kon est-ce que li ñu fiy def dina méngoog bëgg-bëgg askan wi xanaa wax ju waree lañ moo fi am waaye loo xamee ne dina indil réew mi ndëgër laay boo xamee ne dina mën a tax ñu xam ne contre pouvoir vrai contre pouvoir boo xamee ne bu mbënd mi amee ñu wax ci jël ci ay mesures bu fekkee ne xale yaa ngi dem géej ñu wax ci jël ci ay mesures bu ñu amee ay problème de transparence am ay problème de jaay doole ak nit ñuy tooñ te di si mucc te dara du lañ ci fekk ñu taxaw ci jël ci ay mesures yow wér na leen ne ñi muy seetaan aussi wér na leen ni assemblée nationale bi du ko def fas yéene wu ko taxawee te xelam nekkul ci loolu par conséquent man dama fi ñëw parce que sama warugar la. dama fi ñëw parce que foog mu am drapeau boo xamante day bañ toujours ngir li ñu fi gis dëppoowul ak liñ ñu fi war a taxaw ñu koy continuer di def mais résultat yi moom moom dëgg-dëgg mooy mooy loolu rek. defe naa ne benn waajur du nangu surtout ñu nekk seen doom quatre mille doom moo nekk à l'instant tey jii fële sa Tenerife muy quatre mille waajur kenn su ñoom du nangu ni yaruloo sa doom ndax loolu amul problème bi kañ nañ ko wax te dee mooy gouvernement bu lajj ci capacité am pour indil doomam liggéey boo xamee ne dañ ko soxla ittewoo ko te muy farata si ñoom gouvernement bu lajj ci ay politique de développement yoo xamee ne moo waroon tax doom bu fi juddoo bëgg fee màgge bëgg fee liggéey bëgg fee tedd ndax li xale yi wax dañu ni gedd nañu seen réew te xaleel bu geddee réewam dafay firi ni réew ma amul lenn lu mu koy proposé wala lu muy teg ci loxoom lu war a tax mu mën fa des te loolu mooy vrai tontu bi mais je peux comprendre que ministre bi waxee noonu ndax dañ leen jam ñoom la ñu interpellé ndax ñoom ñoo nekk ci boppu réew mi ñoom ñooy wax ni croissance am na ñooy wax ni émergence am na waaye xale yi tontu nañ leen tontu bu leer nañ boo nee ne émergence amul croissance amul te réew mi jagul ndax amul benn capacité pour taxawu ay doomam.